niki démb ci alxames bi kii di président de la république ba Bassirou Diomaye fay daal dina dissoudre li nga xam ne moo di assemblée nationale bu Sénégal li nag euh, tax na ba ñenn ci askan wi amuñu sur leen daal di bett ginnaaw kàddu yu premier ministre Ousmane Sonko yëkkati woon fan yi weesu doon xam ne ni ñii di député Benno Bokk Yaakaar lu douze bu jotee dina tal leneen lu dul nekk député ci biir assemblée bi ginnaaw kàddu yooyu nag kii di président parlementaire Benno Bokk Yaakaar Sarr di Abdoul Mbow daal dina génnee ab communiqué di xam leen ni njiitu réew mi lii mu def ci ab dictature ak nasaxal démocratie Sénégal la daal di bokk li xew nag tax na ba yit kii di njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany daal di woote à la mobilisation ñu xamle it affaire Cheikh Omar Diagne préfet bu Dakar daal na dàkk boobu marche ki la di député Guy Marius Sagna daal dina dénoncé ab corruption bu mu gis ci benn policier ci kaw tali bi noonu kii di ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine daal dina rafetu liggéeyu député bi daal di def mu xam ne it ab l'enquête daal dina lancé wu